ginaaw ni yoo bi tey moom gëstu bi leen di defal ci histoire coupe du monde di leen ñaan ngeen abonné ci youtube bi ñu commencé li nga xam ne mooy gëstu boobee dañ koy commencé ak coupe du monde bi nga xam ne moom la ñu génn mu nekk coupe du monde boo xam ne bu am solo la ñu def ci ab gëstu boo xam ne nag dañ koy ànd ak gone yi nga xam ne ñoo nekk ca BBC BBC bu ngeen ko déggee bokk ci télé yi nga xam ne ñoo ëpp doolee Angleterre loolu moom lu leer la ndax am nañ taxawaay boo xam ne ci àdduna bi Euh, télé bu am doole bu ñu koy xool ay correspondant lañu koy xoole te daanaka ci àdduna bi wala ngal kàpp am nañ ci taxawaay boo xam ne bu am solo la BBC boobee nag moo def ab sondage boo xam ne internet internet yi nga xam ne am na ko ci àdduna bi yëpp comme coupe du monde soxal àdduna bi bi nu defee li nga xam ni moo nekk seenub euh, jàngat maanaam def ay question laaj ban coupe du monde mooy coupe du monde bi nga xam ni moo ëpp sens teyit moo gën a neex teyit moo gën a jaar yoon ci àdduna wala ngal kàpp wat yooye ba ñu ko duppee ba teg ko Euh, ñoo xam ni euh, la ca génn ci wat mooy bu Qatar bi téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ay voix am na ko maanaam 78 pour cent ka ca topp di Japon 6 pour cent téeméer boo jël juróom-benn euh, Brésil maanaam téeméer boo jël juróom kon muy wane ni maanaam coupe du monde bi doon am ci Qatar li nga xam ni sax moom la rawee nga xam ni moom lañ yaakaar ne ñoo topp ci moom oto sax mënu koo daw mu nekk loo xam ni lu am solo la kon Qatar. jàpp leen ni ko président bu Qatar bi waxee woon euh, mooy euh, coupe du monde bi mooy coupe du monde ba nga xam ne moom président bi jàpp na ni musta fekke coupe du monde bu réussir nii loolee am solo bu baax a baax mu nekk noo xam ne nag lu am solo la ci lu nu mën a bàyyi xel kon Qatar euh, réussir na li nga xam ni moo nekk maanaam pari bi nga xam ni amoon nañ ko ci coupe du monde yi nga xam ne daanaka sax ragal na leen pour jox leen ko loole kon mu am solo bu baax a baax kon ñi nga xam ni ñoo ci topp war ko organiser nanu roy équipe bi la nga xam ni wala nanu roy réew mi nga xam ni mooy réew naar yi nga xam ne mooy Qatar ndax lii moom lu am solo la ci wàllu football.